Yoff yéenekaay gi di réew mi quotidien nee en tout cas li am ba des àll mooy bi nga xam ne moom la ñuy gis ni ki démb ca place de l'Obélisque te ko ni ki mbooloo ma takk woon na loola waaye nag la nga xam ne mooy ndaje ma dafa mujje yàqu ndax organisation bu baaxul boo xam ne daan nañu ko fay nemmee ko yéenekaay gi nee na ñi nga xam ne ñooy mouvance présidentielle ñoo nekkoon ca place de l'Obélisque bu Colobane Abdoul Mbaw ci yéenekaay gi di réew mi mel ne lu gaar wàlle ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko nee na am na ñoo xam ne dañoo bëgg ngar daajoo li nga xam ne mooy esprit bu bu M23 te jamono ji xam ne askan wi wàcc nañ ci mbedd mi janoo ak Abdoulaye Wade ñenn ñi ñoo ngi woon seeni climat ñenn ñi di nekk di jaay ay terrain ñenn ñi yoraloon nag tey bu njaay ay walisama Moussa Baldé ministre de l'agriculture nee na ñi nga xam ne ñoo xeexoon 23 juin 2011 rëcc wuñ li nga xam ne moom la ñu falee Macky Sall ci bopp réewum Sénégal Mor Ngom jël kàddu gi ni ki démb daa wax ne li nga xam ne moo dal yenn réew yi nga xam ne moom la ñu feggol loolee war na ñoo moytu mu daal di dal Sénégal yéen a kaay gi de li nga xam ne gis nañu ko niki démb ca place de l'Obélisque ca mouvance présidentielle am mitin dëgg la mitin ndax li nga xam ne mooy ay pancarte bëri woon na fa loola journal bi di Walf Fadjri nee na mitin ci boppam moo amoon fi nga xam ne mooy place de l'Obélisque waaye nag ndaje ma la nga xam ne moo ko yàq mooy farandooy Amadou Ba yi ak farandooy Moussa Sy yéen kaay gi di Walf Fadjri xëy dañu xibaar naan ñu en tout cas li am ba des sall mooy guerre des clans loolee la ñu gis niki démb ci mouvance présidentielle yéen kaay gi di enquête nee na jamono ji nga xam ne M23 ñoo ngi place de l'Obélisque ñi nga xam ne ñooy waa M2D mouvement pour la défense de la démocratie ñoom ñoo nga woon sa terrain bu HLM Grand waaye nag lu ñu yëkkul Macky Sall dañ ko fàtte yàq nañu ko musiba ak mbelengaana xas nañ ko ba maara day taal yi Ousmane Sonko la nga xam ne moom la wax ba mu jëlee kàddu ga nee na Sénégalais yi jamono ji dañoo sonn ba maara day taal yi ci ñi nga xam ne ñoom lañ dénk réew mi mbooleem li nga xam ne Sénégal yi maanaam naqari woon na leen ak jamono ji Macky Sall daf koo gën a yokk ak nga xam ne ñoom la ñu àndal waaye nag yokk si cuune la nga xam ne moom la xamle nee na nag fulla ci bopp boppam maanaam nit moo koy wutal boppam mbedd mi la ñuy wàcc mbedd mi mooy saafara yéen yi Barthélémy Dias nee na ñii nga xam ne ñoom la ñuy jàkkaar xam nañ leen genn xeetu xam goo xam ne ni ñuy lijjante seen i affaire xam nañu ko yéene kaay gi ñu xëy fekk fa dàmboo ca M2T moom tim nee na jamono ji ñoom pare nañ ngir fekki Macky Sall ca pale ba yéene kaay gi di réew mi quotidien nee na niki démb terrain HLM Grand Yoff xumboon na lool Ousmane Sonko Barthélémy Dias Abdourahmane Diouf Déthié Fall dàmboo ca Cheikh Bamba Dièye Cheikh Bamba Dièye nee na la nga xam ne daal Sénégal moom la ñu doon xeex 23 juin 2011 la waalo gën a ay bu dee ay tappalekat ak ñoo ne dañuy yëngatu ci lu jëm ci wàllum njuuj njaaj ak bëgg a force troisième mandat lépp ma ngi ci réew mi waaye nag lu jëm ci wàllum troisième mandat gi loolee ñun ñooy taxaw xeexal ko suñu bopp te loolee munta am ci réew mi yéen kaay gi di Sud Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu mouvement pour la défense de la démocratie ñoom nag nee nañu ñetteelu mandat bi mënuñu ko ko nangul passation de service yéen kaay gi Déthié Fall nee na Macky Sall dafa ci boppam dafa lajj dafa am foo xam ne fi la ko yi doon xaar Macky Sall dugg mbooy gi yéen kaay gi di Direct News nee na en tout mooy fukki at ginnaaw bi ñu taxawalee li nga xam ne mooy 23 juin waaye nag tey ji la wàllu gën a ay tey la askanu Sénégal gën a nekk ci ay jafe-jafe yéen kaay gi de la Témoin nee na nag wax ji bu ñu waxantee dëgg mouvement pour la défense de la démocratie ak nga xam ne ñooy M23 match la démb match nul la yéen Quotidien nee na en tout cas pouvoir bi ak opposition bi ñoom ñaar démb ñëpp mobilisé kon nag match ni la diggante pouvoir bi ak opposition bi pro Sonko yi ak pro Macky Sall yi yéen a kaay gi di Rewmi Quotidien xëy nag ñu xibaar naan ñu Sénégal am na loo xam ne war nañu koo lijjante ndax ci Sénégal ay milliards milliards milliards la ñuy jël tabax ci ay hôpitaux nag du am daal ay matukaay yoo xam ne yu mucc ayib bla yéen a gi def benn gam-gam la ci hôpital bi nga xam ne moom la ñu jàpp ne mooy hôpital bi gën a rëy ci diwaanu Maroc hôpital privé tudd nag hôpital Jadida Maroc hôpital boobi quatorze milliards la ñu ko defar waaye nag mbooleem loo xamante ni ay juntukaay la ak i lal ma nga ca biir hôpital ba hôpital bii nga xam ne nag mooy bu Kaffrine bi vingt-deux la ko defar te nag amul ay juntukaay yu tax ñuy wax yéene kaa gi nee na loole lan moo ko waral mooy Sénégal daal man naa jël ay milliards jënd béton jënd suuf jënd ciment tabax nag ab bâtiment ba mu mucc ayib nag waaye nag juntukaay yi nga xam ne moo war a nekk ca biir maanaam adada yéene kaay gi di Walf Fadjri xëy préfet bu ndakaaru jëlee nañu ko ci ndakaaru yóbbu ñu ko Saint-Louis andi nañu fi mortalitin mi nga xam ne moo nekkoon préfet bu mbuur yéene kaay gi de Le Quotidien nee na ni ki démb conseil des ministres toj na ndax nag Macky la dafa nommé koo xamante ni maanaam génn na àdduna bu yàgg yàgg yàgg Moussa Gadio mi nga xam ne ay jamono moo nekkoon ancien sous-préfet bu Thiès Nord démb dañu ko fal te moo ne day Moussa Gadio moomee faatu na ci weeru février wi nga xam ne moom la ñu génn démb la ñu ko nommé sous-préfet bu Banda Fassé yéene kaay gi du Source nee na Macky